Sénégal 4 TV yow yaa ko moom ku ne mën xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever Sénégal defati na Maninam ci boole aw askan ngir ñëpp mën a nekk benn waxal ñu indi leen groupe whatsapp bu bees tàq tuddee ko axlu làmb di fa dajale mboolem kuy fan sa Modou Lo fan sa Eumeu Sène fan sa Balla Gaye mbaa fan su képp ku yëngatu ci làmb da ngay bëggee làmb envoyer gaaw sa ko ci 77 507 27 ñu dugal la ci groupe boo xam ne làmb dong la ñu fay waxtaanee. Ama Sène daal li ñaanal yalla na daan mu jël bu set vecc bo am benn yalla nako na ko duma nak nako ko duma la Balla Gaye dama ko bëgg duma bala mako dan. daan waaye yàlla na duma duma yu metti ci barke alquranu karim mu daan ko jël bu set guuy ci barke yonent yalla Muhammad ñu koy ñaan bu baaxa baaxa baaxa baax a baax képp kuy supporter Ama Sène maa lay wax ne la nga ñaan ci barke wëru koor yu ne Ama yalla na daan mu Lo jël bu set vecc te bala ma koy daan mu duma ko duma yu metti ci barke yonent yalla Muhammad yàlla yàlla mi nga xam ne mooy maye ndam te di ko maye ñu ngi lay ñaan yàlla suñu borom bi ñu ngi lay ñaan bu baax a baax a baax nga may Ama Sène jël bu set wecc ci kaw Modou ci barke yonent ci barke bépp lii ñu ngi koy ñaan ci barke borom maam borom Touba ñu ngi koy ñaan ci barke maam Baye Niass ñu ngi koy ñaan ci barke maam Alaaji Malick ñu ngi koy ñaan ci barke maam Limaamu Laay ñu ngi koy ñaan ci barke bu Kunta Jaasaan ñu koy ñaan bu baaxa baax ci barki yonent bi yalla mi nga xay moy maye ndam yalla may amma sen ndam sen dugg ci barke yonent yàlla Muhammad amma sen bu ma ko manono gis dina ko wax ne ko fo tollu del wax amin fo tollu sa xel bu mo tajee rek del wax amin ma ngi lay ñaanal guddi ak bëccëg barki yonent yalla Muhammad ma ngi lay yene ndam ndam lu ko xamante di bi ndam li yalla na la ko yalla may ci barki yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam. man dama ni supporter amma sen bo xani ne tey bu ñor ma doxal fukki junne amma sen daan mo lo barki yonent bi jaral na ma billahi jaral na ma ay muuru xarañ loolu nii muuru xarañ loolu moom ay galaaj lay bëree moom mburu gallaaj la kooku moom bu amul galaaj day kooku mburu galaaj la waaw kooku moom extrême yëpp moom pour moom lépp moom war galaaj la ko waa galaaj mooy daan bër gars yi léetuñ loolu en tout cas ku fi nekk moom nañ ko ñaanal rek waaw roi yàgg ci moom quoi ku fi nekk waaw beneen sant bi nii waaw mooy nañ ko ñaanal yàlla rek waaw roi yàgg ci moom parce que mooy gën quoi parce que moom moo fi nekk ba keneen nekkaat fi ñu ñaanal kooku parce que moo am solo quoi beneen sant nii waaw xam rek muy loolu quoi mu ko tamit waaw ba combat bu mu jëm nii yàlla may ko ci ndam si barki Seydina Muhammad waaw si barki Seexu Tijaan yàlla ko si yàlla may ndam ndam lu réer naññi xam ne mérité na roi des arènes bi waaw ko ñaanal yàlla quoi yàlla may ko si barki Muhammad day am tas kattanu yàlla day am kattanu daan moo dul lool yéen ngi wax rek yéen wax rek waaye nag si waa ngeen comprendre li nga wax nii non li nga wax nii ku xam làmb rek koy wax. billaay wallaay bari na ñoo xamante ni dañuy nekk fii di wax rek mais xamuñu làmb c'est que far moo neex quoi ci xol la sax mais wax réalité dëgg-dëgg làmb non ñu ci bari mënuñu ko ñu ci bari fii nii xam nga lu ñuy waxee far. billaay wallaay man Modou loo dama ko nangu champion kenn waxatul lu ne mel bu dee bëree rek non dama ko yàgg taxaw di ko wax. mais boo leen toogee fii naan Eumeu Sène xam nga gëmul entrainement xam nga comme kii da ngeen di nax seen bopp Eumeu Sène làmb du ko gëm te bëgg-bëggam la te da ko man macha allah doon ci champion loolu laa bëgg ngeen nangu ko quoi combat bii nii doonu sax combat boo xamante ni Eumeu Sène da koy caaxaane déedéet billaay wallaay Modou Lo champion la nag ndaanaan la ci biir ndaanaan yi waaye ngàcce ngaal ngàcce ngaalaama Eumeu Sène dafa leer mbokk fan si ëmma gis nga d'accord Modou Lo daan nañu mais ba ñuy daan dafa am na mu demee woon mais yoo nga baax sa mbër <laughs> boo ko dóoree aller doo ko dóor waaw yoo xam nga loolu bu baax te ëmma combat bi daf ci pare waaw dañ ci pare de <laughs> ci combat bi moo garaaw xam nga ku daan bomba jéy nii waxuma la ak Modou Lo boobu ni mu demee woon la rek xam nga waaw xamul woon rek waaw parce que ba mu ba ka mbokkam yi woowee dafa ne non kii dama koy yenu daan ko waaw fa nangu woon na trop. asalaamaaleykum jawrin yaa ngi wax lu la neex de lu la neex rek ngay wax mais xam nga combat bu njëkk bi ak bii du benn bu njëkk bi du doon benn de ñun waa ama seen lañu xam di nga xam ni bii ak bale bokkul de gra bii bii incha allah dinañ ci am ndam bu man maa la ko wax yaboo nga bindi wala nga jàpp. aussi di leen wax rek ne leen nañ def nank ñun fan Eumeu Sène yi ci làmb bi ndax yaakaar naa ne làmb doy na waar doy waar goo xam ne nii aussi ki la xas ba daan ba pare donc ak lu mënti xew rek soo koy paree nag ci def nank ñun man nag làmb ji moom su ma sañoon moom Eumeu Sène day yëkkati mu lu ba ci kaw bàyyi mu daanu. mais nañ ci def nag ndax Modou Lo daan nañu ba pare donc ki la daan ba pare moom munoo wax ne dangay ñëw rek taxañ ko sànni. <laughs> jàmbaar lu leer nga wax lu leer non <laughs> loo <laughs> Modou Lo champion la de eh, balaa muy daan combat bi dina wax lu set set set wecc wecc te doolu am dara sax combat bi gars dañ ci pare de dañ cee pare nekkul sax ay caaxaan dañ cee pare pare pare xam pare dañ ci def. waaw man lu may wax foofu moom combat boobu moom combat ëmëg Modou Lo moom combat ëmëg Modou Lo moom xam nga du ñu wax ñu moom fan si ëmb yi dañ naan teg rek toog xaar quoi ak moom moom revanche dañ cee aay quoi waaw tax nga wax ji soxla muy bëri gars yi nañ toog si kii di wax kii mais Modou Lo xam na bu baax ni combat combat la am te du yomb si moom waaw naka xam bu baax a baax a baax a baax a baax a baax day yàgg si ñun booy ñaar Lac de Guiers moom Lac de Guiers ñun moo xam nañ xam nañ Lac nu mel. wax jee bëre rek mais bu ñëwee day nooyal mais dina xam ne booy bi nag pare na bu baax waaw bu yeboon na pare xam ne du am dara dara ci booy bi. xam naa du yombee noonu tamit mais qu'on se la vérité di gis nga boo xoolee euh, Eumeu Sène moom boo boo xoolee li mu doon wax lépp maanaam defet boobu ko gën a métti nee looloo ko def mbër yow Eumeu Sène Modou Lo mu ngi si mbër mu ngi si contrat di bëreeg Balla Gaye boobu Eumeu Sène jël na avance boo commencé defaru loolu moo ta may la risque bi instant man mun naa wax ne si Modou Lo la. non copain ñun ñun sofor Eumeu Sène xam nga tey jii waa Pikine mënuñu koo fay ñun mënuñu koo fay est-ce que yaa ngi comprendre mais Eumeu mooy seen kilifa ñoom ñëpp mais ama mooy yëngal Pikine ba ñaar càppa toli gi xam nga mais ñoom ñëpp ama ama mooy seen mag mais fi ngeen bëgg a jafandu naa ay booy ñaa booy ñaa booy ñaa ak ama benn la rek su see def si la. bu ngeen jëlee avance bo ñaa jàpp leen lu ba amaa ngeen jël rek moom yàgg yàgg ñëw rek tel leen a ñëw rek. mais bu leen fàtte ni bu leen fàtte ni lamb dafa lamb lamb mbër dafa am entourage ñoo ko waxandoo léegi-léegi yàggut sa entourage luñ la luñ la proposé ci moom ngay wéy bu doon nit lu mu lu ko neex lay def kon xam ngeen ni am na seen bokk na ci bu yàgg kon foofu ñu bañ cee sori waaw moom xam li xam xam na li mu bëgg ca lamb mooy métier am depuis bu mu nekkee xale ba ba ba ba mu déggee roi des arènes kon bu ba nekk di roi des arènes euh, mu di ba di bëre woon ak Modou Lo Modou ko muy bëre waan moom bi mu nekkee roi des arènes ñu proposé le tournement 450 millions nga bañ xeyna xeyna entourage ans da am jangal jangal buñ ci def ba ba xamal ko ni loolu du leen arrangé ñu nangul leen ko te loolu man ak moom ñoo ci ànd champion fi nekk dina leen ump de waaw bu bis ba daal di ngeen xam après ngeen di comprendre yéen daal yéen toog leen fii di wax rek <laughs> champion baa ngi ceen ci ruqam di dafi bagage am yéen toog leen di wax rek génn gi a yaakaar ni champion bi dafa tëdd dënn law yaakaar gàllaaj boo leen yaakaaree ni champion bi combat bi ci nax ngeen seen bopp billaay wallaay champion bi dafa liggéey doo leen mënu leen koo xam nag pour l'instant tax doo leen ko gis mais xool leen combat li ma indi man ak Bombardier lu leer laa leen di tagal <laughs> après ngeen di comprendre Fall làmb ji fii la xewe Sénégal du Europe du fenn kenn ku ci nekk yaa xool fala la sa entraînement doyee nga defee ko fa mais du Europe la ngay wuti Europe am na Sénégal gi lu leen du fàtt ak Europe soxlawuñ Europe ñi ngi Sénégal gi di liggéey jour yi daal bu jour ba daal di ngeen comprendre lu bëree bëri naa leen teg lu leen nit musta teg ci làmb ji te di ngeen ni ëmm seen bett na ma loolu moom dinaa ko dégg ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. boog baax may ñoog Europe Europe taxut a daan. làmb ji Sénégal la Europe taxut a daan gaan nga toppandoo ko Europe luy Europe ñun bu fekkente ne liñ soxla fii lu ko mën a amee duñ toog lu ñuy wuti Europe ah. gan gi du affaire maanaam Europe da day tax daan sax du loolu sax mais Europe da nga dem uti xam-xam yokku doole lu yokku lépp Sénégal xam nga la moo fi nekk ñoo mottali rek mottali bi mooy lan contact yi jeex na loolu kese la loolu kese mais préparation combat dégg dëgg Europe la bitim réew la saa yi lu mu leen wax dëgg la fu ngeen nangu loolu. Sénégal 4 TV yow yaa ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 Sénégal 4 TV forever.